nga xamante ni dafa wax ni ressources yi askan bi ñoo ko moom li nga xamante ni mooy ko ci euh, suñu géej ak si suñuy suuf euh, askan wi moo ko moom te réseau Cajus di ko lancé euh, Cajus du organisation bu joué rôle am solo ci coalition bi donc liw li nga xamante ni mooy li sabab loolu mooy am na ay défis yoo xamante ni nguuru Sénégal war na ko war na ko war na pour ñu gën a ñoŋal euh, ni ñuy gérer suñu ay ressources minérales défi yooyu bi nga xamante ni moo si jiitu mooy une répartition équitable des la ñuy def ba askan bi mën a gis boppam ci koom-koom bi nga xamante ni moom la ñuy jëlee ci exploitation ressources yi booy xool euh, communauté yi nga xamante ni ñoom ñoo impacté directement communauté yooyu ba léegi ñu ngi jooy ñu gis ñu seen bopp parce que dafa am benn paradoxe boo xamante ni répartition bu baax ci ressources yi nga xamante ni mooy jóge si suñu suñu suuf rek moo ko mën a corriger boo xoolee dëkk bu mel na Sabodala fa la ñuy génnee or bi mais Sabodala bokk na si li gox yi gën a pauvre ci euh, Sénégal te c'est la même chose boo demee ay Darou Khoudoss wala nga dem ci delta du Saloum wala nga dem si yeneen localité ma ngay commencé di am ay impact boo demee Gendar tamit sa Ndar fa la ñuy génnee gaz bi si géej gi waaye population ya euh, ñu ngi nekk entre le marteau et l'enclume érosion côtière bi mu ngi tamit exploitation gazière commencé na tax ba débarquement journalier yi en matière de de pêche mi ngi wàññeeku carrément donc loolu li ngay mën a corriger mooy une répartition équitable des ressources te loolu mooy sens u CAJUST parce que justice sociale lañu wax euh, bu répartition équitable amul justice du am donc c'est extrêmement important te loolu noonu c'est un vrai défi que l'État du Sénégal devrait relever parce que fonds yi nga xamante moom la ñuy dédier collectivités territoriales askan wi fa ñuy jëlee ressources yi mën ci gis seen bopp fonds yooyu noonu transfert ba léegi c'est pas loolu noonu combat wu cas juste la combat wu les écotaires loolu c'est bokk na si benn défi beneen défi yi mooy les questions environnementales aalam bi bu ñu ko sàmmul euh, day am jeexital ci askan bi euh, day am jeexital ci suñu dundin day am ma jeexital ci askan bi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk fa ñuy génnee gàncax fa ñuy génnee ressources yi ndax day am ay problème yu seen si seen wér-gu-yaram boo demee Kédougou documenté nañu am na jigéen ñoo xamante ni ci seen wàllu jurukaay dañuy def ay fausses couches yu bëri parce que dañuy boo xoolee 50 pour cent te loolu étude rapport ITIE wane na ko 50 pour cent ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci orpaillage traditionnel bi ci juraay yi 50 pour cent yi ay jigéen ñi ak ay xale yu ndaw dafay am vraiment boo xoolee taux de prévalence sida rek moyenne nationale bi 0,5 pour cent la waaye boo demee Kédougou 7 pour cent la donc ay impact environnementaux ak sociaux yoo xamante bu ñu defoon ay études d'impact environnemental social yu baax dana mën a wane que ni war na am ay jeexital ci askan bi te dana am tamit ay jeexital ci alam bi yooyu tamit ay défi yoo xamante ni war nañ ko relever globalement yooyu mooy. Euh, te code bi jëlu ko en code code 2001 jëlu ko en charge. le de de 2001 c' est un code boo xamante ni c' est dépassé parce que code la boo xamante ni. état du Sénégal def na réforme yu mu war def yëpp pour gën a ñoŋal gouvernement du extractif y a deux codes de l'environnement la ñu réformé wul te ba ñu nee lancé nañu processus bi boobu léegi kenn xamul kañ la mais ba léegi ni kenn adopté wul le code de l'environnement pourtant jël nañu sax ay loi yu bees comme loi local loi sur la répartition des revenus sur l'exploitation des hydrocarbures am nañu code d'AGI bu bees waaye code de l'environnement moom depuis 2001 ma nga fa code de national am matière de protection de l'environnement, surtout dans un contexte bu ñuy exploiter les ressources naturelles donc il faut que ñu taxaw environnement bi ndax alam bi buñ ko sàmbul ñi euh, compagnie dinañ ñëw jël li war a jël vingt ans trente ans après ñu dem bàyyi ñoom ay jafe-jafe yoo xamante ni buñ ci taxawul dana indi ay jeexital yu jafe ci askan bi euh, ci jiw. nga wax sant ressources yi nga na euh, wax sant tamit ne wàll bi ñu ci war a am. waaw eh, xam nga def yi dañ koy documenté buñ ko documenté ba pare ñu def lii nga xamante ni Cajus ñu ngi koy tàmbali tey pour les secours fee di nga ci feetu mooy soo paree documenté euh, jafe-jafe yooyu nga def plaidoyer te plaidoyer boo koy nga xamante ni moom la euh, répartition revenu yooyu soxal muy askan bi nga xamante ni ñoo dëkk fa ñuy génnee gàncax fi ñuy génnee ressources yi jël collectivité territoriale yi nekk foofu nga xamante ni am na ay fonds yoo xamante ni loi moo leen ko jagleel pour ñu mën a financer ay programme de développement local nga mën leen boole mu nekk benn say ñu ànd ak organisation de la société civile yëpp def réseau def plaidoyer dans le réseau dem travailler avec les parlementaires parce que on ni ko depuis ay jeuti ko ci waxee léegi ñun on travaille avec le réseau des parlementaires donc def nga nekk benn say ñu mën a dem waxtaan ak suñu nguur pour a challenger compagnie yi nga xamante ni ñooy euh, boo xamante ni ñun loolu mooy suñu ay la ñuy def ba mën a def un suivi des obligations contractuelles sur tous lu jëm ci wàllu répartition des revenus lu jëm ci wàllu alam bi naka def tey gën a ñoŋale ak lu jëm ci euh, naka la ñuy def ba contrat yi leer liñ ci dëxal askan bi mën ko xam ngir mën na ngir mën a laaj moomeeram loolu noonu lépp boo ko mooy tënk la campagne article 25. a pour l'État, les compagnies à s'acquitter de leurs obligations effective la distribution des fonds issus de l'exploitation minière. Car l'article 113 du Code minier dispose que l'État doit verser 20% des recettes aux collectivités territoriales à travers les fonds d'appui et de péréquation. L'article 115 toujours de ce même code dispose que les compagnies doivent verser 0,5% de leur chiffre d'affaires aux collectivités à travers euh, les fonds d'appui et de développement. Depuis l'adoption du code minier de 2002, mhm. mhm. on se rend compte que les ressources ne sont pas suffisamment versées aux communautés. Donc l'objectif de cette campagne aujourd'hui, article en référence à la Constitution du Sénégal, est aujourd'hui d'inviter ces deux acteurs, ces deux acteurs, à savoir l'État, les compagnies, de faire en sorte que les ressources appartiennent aux jeunes. Avant de nous, nous allons rendre un vivant hommage à nos chers panélistes et nous espérons qu'à la suite de ce panel, des échanges fructueux sortiront de ce panel. La, le lancement de campagne aujourd'hui euh, euh, euh, il y aura des activités de terrain à Chelsea, Kédougou Thiès-Kédougou euh, euh, Matam continuer le lancement de cette campagne à travers des programmes communautaires, des activités avec les élus locaux, euh, les communautés impactées par, impactées par l'exploitation des ressources.